بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bii di waxtu aljumaa waaye dellu si di sant yàlla moom mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum te muy bu ngeen ma santee rekk ma dolli leen mu mel ni jaam bi buy dund zaman bu nekk dafay soxla njëggalal boroomam waaye zaman bu nekk dafay soxla itam yërmande boroomam moo tax di sant yàlla mu di la dolli yiw yiw biy jóge ci yërmandeem ak ci ngërëmam lu am solo la su ko defee nag comme moom yàlla mooy nangu moo tax ñu koy ñaan mu nangul nu suñu cant tabarakallahu di dellu di yasal sunu ziyaara ci sang bi nga xam ni moom la yàlla wax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni lépp loo xam ni ngëneel la ak lépp loo xam ni mooy dalal xol te mooy dëfal jaamu yàlla kàddu googu du jóge lu dul ci dënnam moom Muhammad moo tax mu nekk ki nga xam ni yàlla tànn na ko ba noppi def ko mu doon ngëneelu jaam yi ndax jaam yi julli ci moom jaare ko ci ay salaatu ala nabi loolu moo leen di jëriñ seen digganteeg yàlla su ko defee nag borom bi moom dafa am ci contexte bi nga xam ni moom la ñu binde te wax na ko itam wa maa xalaqtu ljinna wal insa illa li yaabuduni nee na binduma nit ak jinne lu dul ni sababu bind bi lenn rekk la te mooy guddeeg bëccëg ñu nekk di ma jaamu kon jaamu yàlla dafa doon priorité boo xam ni ku nekk rek war na xam ni mooy li ko indi ci kaw suuf waaye mooy li ko indi itam ci àdduna ak espace bu mu mën a dund li ko indi rek mooy moom mbindeef la te itam jaamu yàlla moo ko indi waaye mu mel ni itam yàlla moom ci xereñam fexe na ba la ñoo tuddee volonté te mu di pas-pas mu bëgg ci dund jullit bi jullit bi fexe joxe maanaam fexe joxe lu ni mel waaw ci wàllu volonté waaw yàlla bëgg na jullit bi wane pas-pasam bi mu nekkee ci àdduna bu koy wane itam mu wane ko waaye ci wàllu la noo tuddee volonté waaw te mooy pas-pas moo tax bi mu ñu booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon ngëneel gu rëy ci ñun wax na ko ca laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim waaw bi mu nu booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ngëneel gu rëy ci ñun nga xam ni suñu xeemeemee leeram rek jaare ko ci salaatu ala nabi julli ci moom yàlla jaare ci yërëm ñu waaye itam dem ba mën ci jaare gërëm ñu waaw te xam nga yërmande yàlla ci jaamam loolu ni mu rëyee rek ëpp na waaye boo mënee jaare ci leeru yonent bi ba yàlla du yam rek ci maanaa yabal yërmandeem ci yow jaam bi mais mu dem ba mën ci sax jaare gërëm la ci noonu nga mën a xam ni yonent bi degré bi mu am ci ñun degré bu yaatu la waaw ndax mooy sunu njëriñ waaye gis nga yàlla pour natt volonté jaam bi moo tax mu boole noog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunu sens bu rëy waaye itam mu boole noog koo xam ni itam ni mu ni sonalee ëpp na te nu di ko tuddee iblis seetal yàlla ni muy organiser boole nu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuy jëriñu jëriñ boo xam ni day wéy abadan ci lumière am yiw bi su wàccee mu di yërmandeem yiw bi du bu wàccee mu di ngërëmam waaye ci foofu itam mu tànn fa beneen mbindeef boo xam ni moo ko rëbbal boppam nu tuddee ko iblis mu indi ko pour mu sonal nu waaw boobu suñu volonté lay natt boobu sunu volonté lay natt waaye gis nga yonent bi moom li nu seq ak moom yàlla jàngal nañu ko waaw nee na yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi nga xam ni yéen a bokk ci dairatul iman waaw ndax bu tuddee allazina amanu mi ngi wax ak ñi nga xam ni am nañu iman su waxee yaa ayyuhal naas nag nit ñëpp ñoo ko moom waaw su ne yaa ayyuhal kaafiruun ma ngay wax ak ña nga xam ni danoo wedd nu tuddee leen yéeféer waaw yaa ayyuhal munaafiquun muy wax ak ñi nga xam ni ñoom lay wax ni wa minan naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil aaxiri wa ma hum bi muuminiin waaw wa ñi nga xam ni dañuy wax ni gëm nañu yàlla gëm nañu àllaaxira waaye nee na fekk na seen jëf du ko wane su waxee yaa ayyuhal munaafiquun ñooñu lay waxal waaw bu waxee yaa ulil albaab nag mooy ñi nga xam ni dañuy settantal waaw mooy ñi xàmme mooy boroom xel yi waaw ndax mën nga am xel te xàmmee goo ndax xel da nga koy utiliser pour xàmme moo tax mu ni yaa ulil albaab waaw parce que boo déggee mu ni boroom xel yi dafay mel ni bindul ñeneen ñi def ci ñoom xel te yàlla def na ci ñëpp xel. ku ko utiliser ak ku ko utiliser wul rek moo fi nekk waaw looloo tax bu jëlee iblis mu nekk jaamam boo xam ni moom yàlla moo ko rëbbal boppam waaw bi mu koy rëbb itam xel mi nga war a utiliser pour xalaat lan moo tax yàlla rëbb iblis mën nga ni benn bi mooy priorité ca ba mu ko rëbbee mooy rëy kon déjà boo dee bokk ci ñañoo tuddee yaa ulul albaab di borom xel yi rek li nga war a njëkk moyetu boo settantalee mooy rëy waaw ndax rëy moo tax yàlla rëbbu iblis waaw rëy moo tax yàlla rëbbu iblis waaw ndax nee na moo gën aadam waaw loolu la wax yàlla ni ko maa ko gën waaw yàlla ni ko comme yaa ngi fiy indi waxi ngëneel te bindoo sa bopp kooku fa la rëy yam waaye boo seetloo aada indi na loolu ba da ngay dégg nit nettali ko ci iblis ba noppi bu jugee nag nga dégg mu ni ah nun ñoo gën diw waaw nun ñu lu tax nu ni ndax géwal la waaw nun géer lañu noo gën diw waaw lu tax ndax diw jaam la ñun gor lañu gis nga waaw te kiy wax loolu kat bu jógee mooy dem ca penc ma jël micro ba di jàngale iblis waaw te kooku la muy wax lu mel noonu moo daaneel iblis parce que iblis dafa ni moo gën aadama waaw kon lu jar di moytu la boo utiliser sa xel rek lu jar di moytu la waaye gis nga yàlla boole noog moom pour mu doon moom iblis sunu nattukaay ci suñu digganteeg yàlla suñu nattukaay laa wax waaw ndax nattukaay bi mooy nan ngay fexe ba rëcc ci moom am yërmande yàlla wala ngërëmal yàlla wala nan ngay xoolee ba mu yóbbaale la ci lëndëmam nga merub yàlla dikkal la wala ëllëg mbugalub yàlla dikkal la waaw yàlla ni yeenay tànn nag yàlla ni yeenay tànn yonent bee ngi nii di Muhammad jàngal na leen lépp luy teggin ak lépp luy lu rafet waaw yeenay tànn ndax di ngeen ànd ak moom mu ni waaye itam ca wet ga iblis a nga nale ak lëndëmam moom tam daf leen di jàngal lu ñaaw ak li nga xam ni su ngeen ci duggee du ngeen mucc yeenay seet nag ndax da ngeen di ànd ak moom waaw xam nga natt booboo tax alxuraan dellu si di wax ci diggante àdduna ak alaaxira waaw yàlla ni bu ngeen bëggee àdduna man maa yore àdduna maa yore alaaxira waaw waaye bu ngeen jubloo yi ca alaaxira dina fekk ni mën naa ca jaare sax jox leen àdduna te du yàq dara ci seen alaaxira waaw mu ni la ca des nag yeenay xool yeenay xool ndax dama leen booleeg fële ñu baax ñi muy saalihiin yi ñu leen di judde ci siraatal mustaqim waaw ma boole leen fële ak ñi nga xam ni itam lu ñaaw rek la ñu xam su ngeen leen toppee ñu yóbbu leen ci lëndëm waaw mu ni li ci des nag comme binduma leen lu dul ngir ngeen jaamu ma su boobaa nag léegi yenay tànn waaw yenay tànn su ko defee nag ci biir tànn boobu faw nga jàng ci iblis mën-mënam ndax iblis léeg-léeg nga dégg ku wax ni yàlla daf ko may ma ni ëpp naa wax waaw yàlla ay nitam lay may yàlla daf ko jay waaw xam nga jay mooy ñu jox la pouvoir boo xam ni da ngay dem ba defe ni sa moomeel la fekk du sa moomeel waaw loolu la ñu tuddee jay waaw jox la pouvoir boo xam ni da ngay dem ba borom bi la ko jox sax da ngay defe ni lii lu mu la war a jox la ndax sa moomeel la te fekk na nag du sa moomeel daf la ko jox rek pour natt la waaw kooku boo deful attention rek daal di daanu ci kàmm su ko defee iblis nag moom yàlla daf ko jay waaw jox ko pouvoir mystique bu extraordinaire mu mën a manipuler lu ko neex ci organisme doomu aadama waaw mu mën a manipuler lu ko neex ci organisme doomu aadama waaye gis nga. manipulation moom iblis lu muy rëy rëy ci ñett la mëne waaw manipulation lu muy rëy rëy ci ñett la mëne bi ci jiitu mooy ba ñoo tuddee bakkan waaw beneen bi mooy ba ñoo tuddee xol waaw beneen ba mooy ba ñoo tuddee xalaat waaw bi ñoo tuddee bakkan ak xol rek su koy manipuler daf koy manipuler doublement maanaam day boole ñaar yi te moom waxoon na ni yàlla comme dégradé nga ma wàcc ma fii danaa fexe yi toog ci buntu siraatal mustaqim ba ku fa bëgg jaar rek ma dévier la yàlla may ko pouvoir mystique bu mu ko mëne ba mu des nag ñi nga xam ni ñoom yàlla moo leen tàmmal boppam waaw ñooñu mënu leen dévier waaye intervention moom iblis ci ngay gisee nit ci ngay gisee nit su xàmmeegul su xàmmeegul walla jaaragul ci siraatal mustaqim am ku ko gudde mooy indi toujours xolam moo koy yóbbu ci li neex bakkanam waaw ndax foofu la iblis di jàpp foofu la iblis di jàpp ci xol bi waaw su ko defee nag mu bëgg loo xam ni yàlla bëgg ko bakkan bi yóbbu ko mu nekk ci mu bëgg li yàlla bëggul bakkan bi yóbbu ko mu nekk ci mu xam ni lii yàlla daf koy tere waaye xol bi moom bëgg na loolu mu continuer nekk ci waaw su ko defee nga dégg ñu ni topp na bakkanam moom ngay dégg nit ki pour mu mucc ci lu jafe la pour mu mucc ci lu jafe la ndax bakkan bi mooy noot xol bi ñu ànd ñoom ñaar waaw ndax iblis dafay manipuler bakkan bi ak xol bi moo tax doublement la koy def ñaar ñi lay boole waaw lu bakkan bi namm rek su ko defee xol bi fekk si waaw mu doon conseiller doomu aadama bi te du yëg ni iblis mooy conseiller waaw moo tax ñu daan laaj hakim yi ni leen iblis bu doonee sa conseiller noo koy xame ñu ni mooy guddi ak bëccëg yépp sa nopp dañ ciy dëkkal rek di la xelal loo xam ni dara baaxu ci waaw ñu ni soo melee noonu te luñ la xelal nag ci lu baaxul nga jëfe iblis mooy doon sa conseil waaye doo ko yëg nag waaw ndax doo ko yëg ndax moom yàlla may na ko pouvoir mystique boo xam ni su doonee sa conseil ci lu ko neex la koy jaarale léeg-léeg mu jaarale ko ci nit nit koo xam ni daf la jege te lu mu la wax du bokk mukk lu yàlla gërëm waaw lu yàq rek la lay wax guddeeg bëccëg waaw soo defee nga ni sama xarit la te xamuloo ki nga xaritool iblis moo ko yabal ci yow moo tax di ko xàmmee lu am solo la waaye su ko defee it buy utiliser xol bi di utiliser li nga xam ni mooy bakkan bi loolu ngay déggee nit ki dem ba bu ci génnee nga dégg mu naan dama nekkoon ci réer waaw te li nga dégg ku ko wax dama nekkoon ci réer léeg-léeg nga dégg ko ni dama toppoon sama ndaw rek waaw léeg-léeg nga dégg ko ni dama toppoon sama bakkan rek waaw léeg-léeg nga dégg ko ni dama toppoon àdduna rek waaw te benn bu nekk ci kàddu yooyu ngay dégg ñu wax la ko da ngay yëg ni kii wax la dama toppoon sama bakkan ki la wax dama toppoon sama ndaw ki la wax dama toppoon àdduna rek kenn ku ci nekk ci ñoom bakkanam la jiitaloon ak xolam waaw parce que la mu doon def boobu bëggoon na ko moo tax mu di ko def. te lam doon def bu dee bakkanam la toppoo nit xolam moo ko ko bëggaloo fekk iblis a yore ñaari ligne yëpp pour dévier nit ki ci siraatal mustaqim waaw pour dévier nit ki ci siraatal mustaqim waaw ci lay nekk ci lay nekk ba bu sañoon nit ki buy génn àdduna ci loolu lay génnee àdduna ndax moo ko gënal moom iblis ndax xam na ni bu génnee àdduna ci loolu du dajeeg yërmande yàlla waaw te iblis li muy fexe yëpp. mooy jaam bi bañ a dajeeg yërmande yàlla ëllëg waaw ba moom bu ko yàlla di mbugalit mu xam ne am na ñu mu yóbbaale waaye gis nga boo ko ci rëccee dem ba xàmme nag mu nag jël dernière arme bi nga xam ni moo gën a efficace te moom la amee moo di xel waaw moo di xel ma ñuy xalaate waaw arme iblis bi gën a dangereux nga xam ni bu ko jullit bi rëccee dem di julli ji mu xam ni mënatul ca julleem ja dara mu rëcc ko dem di woori mu xam ni mënatul ca kooram ga dara mu rëcc ko di génne azaka mu xam ni mënatul ca azakaam ba dara mu rëcc ko dem di haji màkk mu xam ni mënatul ca haj ba dara la muy dese mooy dernière arme moom iblis te mu nekk armam bi gën a efficace pour manipulation mooy mu utiliser nag xelu doomu aadama boobu ak xalaatam ak xalaatam waaw looloo tax ngay gis nit nekk jullit nekk ci yoonu yàlla waaye xalaatam du ko may jàmm waaw xalaatam du ko may jàmm da nga koy dégg sax nit wax ko ni moom lu ko jaaxal rek dafay xalaat xalaat yu ñaaw te du xam lan la waaw ma ni gis nga li jara settantal la gis nga wàllu bakkan walla wàllu xol yàlla dimbali na ci jullit bi ba bu fekkente ni iblis noor na sa bakkanit di nga xam ni ci li nga nekk di nga xam ni ci li nga nekk du dëgg waaw kooku da nga koy xam waaw te fekk na it bu la yàlla may dund ak kilifa mën nga dem ba génn ci bu nootee sa xolit bis bu nekk yaa ngi dégg ñuy waaraate di jàng alxuraan di wax li yàlla bëgg di nga dem ba xam ni sa xol fa mu jëm du foofu mën nga xëyit jóge ci waaye gis nga bu nootee sa xel noot sa xalaat yàlla daf lay bàyyi ak sa bopp waaw parce que lu tax yàlla di la bàyyi ak sa bopp mooy àgg ci yàlla faw yàlla indi obstacle boo xam ni foog nga franchir ko pour àgg ci yàlla te obstacle bi yàlla tànnal jullit bi mu war ko franchir pour àgg ci yàlla mooy xalaat mooy xalaat bu ñaaw waaw xalaat bu ñaaw lu naq di romb la waaw xalaat bu ñaaw waaw lu naq di jéggi la waaw moo tax da nga ci sonn ndax foofu la sa volonté di feeñe waaw léeg-léeg nga gis ku nekk ci yoonu njub dafay sax tiit ndax xalaat yu ñaaw waaw dafay tiit ndax xalaat yu ñaaw parce que xalaat yi yàlla dafa bàyyi iblis ak pouvoir bi mu ko may mu mën ko insérer ci yow waaye aussi mu may la nga fexe mën a jaare ci spiritualité Muhammad pour romb xalaat bu ñaaw bi waaw moo tax lu jafe dindi la waaw da ngay gis jullit boo xam ni day jaamu yàlla ba yàgg sax mu dem ba yàgg di xalaat sax ndax dëgg-dëgg ku dee nu suul la ci biir bàmmeel ndax di nga dekkiwaat sax waaw ndax daf koy jaaxal boo waxee mu ne ah dama gisagul ku dem ba yàgg dellu si kat waaw ndax loolu am na. wala jullit buy jaamu yàlla ba yàgg di xalaat naan waaw aljana sax moom mbaa du doon ko wax pour nee xalaate rek est-ce que am na waaw wala di xalaat ni safara moom duñu wax ni duñ koy mbugale waaye ndax am na dëgg-dëgg waaw waaw ndax yowmal xiyaam sax am na te pourtant kiy dem ba xalaat yooyu di ko dikkal jullit la waaye gis nga moment boobu iblis mooy utiliser xelam di ci créer doute waaw la ñoo tuddee jiixi jaaxa di ko ci créer parce que lu tax mu ko cay créer mooy génne ko ci génn ko ci idéologie waaw xam nga yàlla kay nga di ko jaamu ba nga dee ndaw ba léegi dem ba yàgg di xalaat ndax am na kooku fa mu ne iblis a ngi ci sa xalaat waaw boo ko bàyyeeg moom rek nag mu def ko moomeelam te bu moomee sa xalaat rek sànq la waaw xam nga looloo tax sufi yi nga xam ni dañuy def atarbiyatu ruux Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani waxoon ci lu am solo. mu waxoon ni gis nga xalaat ni mu sewee ci doomu aadama ba am na ñoo xam ni seen xalaat moo indi dut ci ñoom ba sànk leen mu ni moo tax nit dina toll ci xalaat naan waaw donte alxuraan wax na waaye ndax dekki am na te ki koy wax kat jullit la waaye iblis a dugal xalaat bu ñaaw ci moom waaw Cheikh wax kooku ni boo ko toppee naan ko dekki am na di ko indil alxuraan itam nee na loo ko ca wax iblis dana indi leneen dana indi leneen ci wet gi ni ko lii tax mu wax la lii mu xalaataat leneen nee na yow kay li gën a yomb wax ko rek ni ko moom bi muy juddu ndax xamoon na àdduna am na ndax bi mu nekkee liir juddu nee na wax ko ndax xamoon na àdduna am na xamu ci dara liir la dafa commencé di xàmme commencé di raam commencé di dox ba xëy ñu ni ko kan mooy sa baay mu ni diw ñu ni ko kuy sa yaay mu ni diw ñu ni ko fii fan la mu ni kër gi ñu ni ko ci ban réew nga nekk mu ni Sénégal xamu ci woon dara. mu ni wax ko ni ko noonu nga def ba xamoo ci dara boo génnee àdduna itam booy dekki noonu ngay xoolee ba laaj fii fan la ñu ni la yowmal xiyaam nga ni fii fan la ñu ni la nitu barzaq yaa ngi ni nga ni la le lan la nu ni la safara nga ni la le nu ni la aljan nga ni ku lay àtte ku may àtte nu ni yàlla lay àtte waaw nee na boo ko waxee loolu rek xelam mën na dellu siwaat waaw ndax dina am repère ci àdduna looloo tax façon bi iblis mel moo tax gis nga yàlla dafa fexe am lu ko tëj waaw gis nga iblis li muy garaaw garaaw yépp rox daf ko tëj waaw xamoo iblis amul xam-xamul rox waaw li yàlla wax ni xulir ruuxu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalilan ci ñi mu xamal secret rox iblis bokku ci parce que yàllaay préserver rox mais gis nga xalaat bi mu ko may pouvoir moo tax iblis mën a jàpp doomu aadama di manipuler xalaatam ba doomu aadama bi ci boppam détruire ruuxi boppam waaw su boobaa nag bu jugee ni iblis ak a détruire fekk na iblis détruire ruuxam ndax amu fa accès moom mooy xalaat ba détruire ruuxu boppam waaw iblis bu bëggee yàq sa rox dafay créer la ñoo tuddee mauvaise pensée waaw mooy xalaat yu ñaaw su ko defee nga naan lii ndax dana am waaw lii ndax mën na demee nii waaw boo moytuwul sax lii ay nax la. su ko defee ci loolu lay nekk di nekk di nekk ngay xalaat mu lay tàyyalloo ngay xalaat mu lay tàyyalloo ba nga xëy julli ba nga daan julli cawarte gëm gën ca daan am dootoo ko am su koor jotatee yi cawarte ba nga ca daan am dootoo ko am azaka mu gëmloo ni boo génnee sa alal ji sa alal ji day wàññeeku dootul yokk waaw xaji màkk mu gëmloo ni la comme ñoo ñoo tuddee fii alxaaji bari nañ boo demee itam boo dellusee kenn du xam ni demoon nga xel moomu yépp bu ko utiliser ci yow ngay xalaat li mu ciy soxla mooy centré la ci biir puukare te du la centré ci biir jaamu bu yàlla gër moo tax mauvaise pensée boobu lay iblis di utiliser ba nga nekk ci doute waaw parce que boo nekkee ci doute rek détruire nga sa rox waaw boo détruire sa rox nag ñun iblis a ko détruire te fekk amu fa accès waaw moom amul accès ci rox moom fi accès am yam dëgg mooy ci xel moo tax mooy dernière arme boo ko rëccee ci defoon na la nit ku baaxul nga dem ba doon nit ku baax defoon na la nit ku mu moomoon nga dem ba rëcc ci loxo iblis dafay wax ni benn arme la dese mooy sa xalaat ak sa xel waaw su ko defee nag mu ni xalaat bi nag lay utiliser waaw moom lay utiliser moo tax mu sonal ñi ñi nekk ci yoonu yàlla dañ koy jàmbat jamono ju nekk waaw mauvaise pensée waaw gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom bu ko saxaaba yi waxee ni ko ñun li ñuy sonal dëgg-dëgg léeg-léeg mooy xalaat bu ñaaw yonent bi daf leen di wax ni wax leen a'udhu billahi minash shaytanir rajim ñu ni ko lu tax mu ni parce que xalaat bu ñaaw bu mu dikkee rek iblis mi ngi ci sa nopp di la xel nu mu la génnee ci yoon bi nga ne waaw moom daf leen ko daan wax moom daf leen ko daan wax waaw su ko defee mystique yi ñoom ñoom xalaat bu ñaaw ñoom laa uqsimu bi yawmal qiyaama lañ ko daan dindee waaw moom lañ la daan wax jàngu ko waaw dañ la daan wax jàngal saar bi ba mu jeex takk ñetti yoon ñu ni nga ëf ko ci ndox nga naan ci te nga médité ci saar bi ñu ni lu tax ñu ni ndax li saar bi di wax boo ko déggee foog naa ni lu la iblis xelal xelal sa tiitaange moo koy ëpp te wax nañ dëgg waaw wax nañ dëgg parce que alxuraan la alxuraan la ndax yëgoon nañ ni moom iblis amul accès boobu ci rox ba li mu am accès mooy ci mauvaise pensée bi te mauvaise pensée bi lay utiliser pour détru pour nga détruire sa rox soo détruire sa rox nag ñu ni iblis la waaw parce que sa rox bu buñ ko détruire rek moom si fi ni yàqu nga loolu nitu yàlla yi dañu ko xam ba moo tax nu séddale seen jëmm ñaar loolu nag seen karaama la ñoom mën nañ ko waaw mooy jëmm joo xam ni mook seen rox dong la ñoo am liaison kenn xëju ci ak jëmm joo xam ni mooy seen jëmmi shahada waaw bu ñuy jaamu yàlla wala nu nekk ci cérémonie religieuse jëmm ja nga xam ni roxaani yu la mooy ñëw waaw suñu génnee nag pour wax ak nit ñi ci li nga xam ni ci àdduna la dellu ñu utiliser jëmm jëleen ñëpp xame waaw moo tax ngay gis toujours léeg-léeg nga ni ñoom dafa mel ne ñaari jëmm yu bokkul lañ dëgg la ñaari jëmm yu bokkul lañ waaw waaw daf lay jaaxal ñoom nitu yàlla yu pur nag la ko yàlla may waaw wali yu pur yi yàlla may na leen lool waaw mën nga leen gis gisaat leen ñu mel ne ñaari jëmm yu bokkul dëgg la parce que ñoom seen karaama may na leen nu mën ko séddale waaye du ñëpp ko mën nag moo tax iblis mënul am ak si mukk ci ñoom waaw ndax iblis li muy fexe mooy bu gisee nit ku baax ki mooy nan lay fexe ba yàqu roxi kooku comme amul accès ci rox léegi xel mi rek lay utiliser su ko defee foo toll rek xalaat yu ñaaw yi di la dikkal waaw mais nag xalaat yu ñaaw yooyu maanaam buy dikkal jullit bi waxuñu ni jullit bi génn na ci diine wala jullit bi dafa war di jooytu déedéet dañ ni na méditer ci yàlla waaw na méditer dellu ci yàlla ndax loolu aussi il faut que yàlla teg ko ko waaw yàlla du bàyyi mukk nit àgg ci moom mu jox ko ay cër te jaareelewu ko ci ay natt. xalaat bu ñaaw nattu jullit la jullit bi moo war a fexe dépasser obstacle boobu waaw dépasser obstacle boobu seetal Alioune Alioune Abou Talib mës na ci wax lu am solo parce que dafa am benn bis mu gaañu ci benn baaraamu tànkam waaw gaañu ci nii mu xaw dagg tuuti der bi nekk ci kaw jamono jooju mu tombeek Makka mi ngi sedd Médine sedd ba baara dem si mu war a jàpp fajar te boobu ñun li ñu am nii di tàngal ndox yeeg yëpp amul woon da ngay jël rek sata la xànjar boo xam ne boo ko tegee ci lay bi ni muy seddee ëpp na fas yéene jàpp bu àllin laalee ndox mi laal der bi rek mu mel ni der bi dafa am noonu ci jàmm waaw mu tegati waaye gis nga dafa mujj jël ndox mi rek dal di xool der ba fa mu ne mu dagg ko teggi ko sànni fële sotti ca ndox ñu ni lan la mu ni ndax su ma deful nii ci la iblis di nekk naan ma boo ko laaleeg ndox dana infecté ak boo ko laaleeg ndox doot dana metteeg dafay sedd ngay xalaat di xalaat ba waxtu julli raw waaw te seetal yooyu nu mu ciy nu mu ciy dominé nu mu ciy dominé ñu bari moo tax mënuñ ñu jóg fajar waaw ndax dañuy yore yi ñu yore léegi nouvelle technologie yi jox ñu muy portable fu mu sonné mu ne la des na cinq minutes mën nga tëdd ba ci kanam ngay mujj di fay di yóbbu cinq minutes xëy suba rek gis jant bi génn waaw te lu mel noonu la Alioune doon wax. waaw moo tax yooyu ay yoonam la yoo xam ni daf ciy jaare pour maîtriser doomu aadama bi waaye pour bañ ko bañ mu jaar ci siraatal mustaqim yàlla nañu ci yàlla musal te teg ñu ci yoon bi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di muhammad rëddal ñu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu